Aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala mbokki julli di ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen képp ko nga xamante ne ni rek mi ngi seetaan suñu chaine bi di dox mbokku TV ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziare di la jox sa wàccuwaay di wax nag dañoo bëgg a ànd ak yéen ci waxtaan wu am solo nga xamante ne ni mooy weer wi ñu nekk muy weer wu màgg ci ñun weer wu tedd ci ñun di weeri ngëneel di weeri xéewal di weeru mbégte. muy 18 safar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ne nii ci la ñu jëm incha allahu taala muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar naka noonu ci lay nuyoo suñu sang bu baax bi di Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi te woyofal yan bi ci kawam dañ ànd ko liggéey bi ñun taalibe yépp ak moom. di rafetlu bu baax a baax nag eh, lu tedd lu rafet lu taaru la nga xamante ne nii jullit yépp la ko defal ci Ndakaaru murit yépp la ko defal ca Ndakaaru ñu koy nuyu bu baax a baax nag te di ko ziyaare bu baax baax di ko wax ne ko suñu xol sedd na lool kontaan nañ ci lool ñun muri yi bu ko defee si safar nag di bis boo nga xamante ne nii bis bu màgg la bis bu sell la may ñaax sama mbokki jullit yi ak sama mbokki taalibe yépp di leen wax ne lépp loo nga xamante ne nii def nañ ko ci bis ba yàlla na ko sama borom nangu bu ko nangoo pare yàlla na nu ko fulal yàlla na nu yàlla jox xéewal yoo xamante ne nii bis bu egg ak jàmm ak salaam ñu def ko ci incha allah. gan ñi di ñëw yàlla na leen sama borom indi ñu agsi ci jàmm agsi ci salaam fekk fi jàmm bàyyi fa jàmm te delluwaat ci jàmm ñi nga xam ni dañoo yor waruwaay ñi ci ñëw nañ xam ne ñuy màggal si yaatal xol yi dalal xel képp kuy ñëw Touba ko ne war a xam ne Touba ngay jëm si bu ko defee nit ñi li sëñ bi tere nañu ko bàyyi lépp loo nga xamante ne nii dégg nañ ñu ne sëñ bi tere na ko ci dëkkam bu seel bi di Touba rikk waay bu ko fi kenn kenn kenn andi bu ko fi kenn andi bu ko defee 18 safar nekk loo xam ne si nii rawatina waa Touba nañu yaatal xol yi te dalal xel yi dalal gan ñi te teeru leen di leen toggal ñam yu neex di leen jox ndox mu sedd ñuy naan ñuy waxtaan ak ñoom te wàcc lali jox ko gan ñi di lem céer yu rafet yi di leen jox ñuy sol képp kuy ñibbi nga jox ko paas bu soob yàlla incha allahu taala màggal gi reen dañ koo fas yéene def màggal gu ala daw mais màggal goo nga xamante ne nii buñ ko màggalee ba noppi kenn dootu ko fàtte ndax borom Tuubaa bisub tayam bu nekk day gàcceel bisub démbam te defe naa ne képp kuy defar bisub keneen ku am bisam ku ne yaakaaru ci kenn ku dul Cheikh Ahmadou Bamba kon defe naa ne bisub boppam bi du mat a wax dina ko defar ba mu baax incha allahu taala lépp lu ci waay di ci màggal gi nekk alal ju lew ndax borom bis bi day buggu dara lu tax dara dara dara dafa set wecc wecc wecc lépp lu ci waay di dugal na nekk lépp loo xamante ne nii alal ju set wecc la te ñu denc yi borom Tuubaa warta xewle ñuy denc dara dara dara lu jëm fenn fenn fenn fenn fenn loolu warta mën a nekk maa ngi leen jox seen wàcc waaye ne di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar ngi taxalu foofu kaddu yi di leen xaar ci yeneen vidéo incha allahu taala jërë ngeen jëf te ngeen nag ngeen di woy nag di continuer di suivre suñu chaîne bi di Dox Mboku TV ndax yaakaar na ay waxtaan yu am solo rek lañ si jàllale waaw incha allahu taala jërë ngeen jëf